salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu seen wàccuwaay waaw man maa ngi tudd Alassane Gueye nekk bergerie di soxna Mané Diop waaw. Euh, Alassane tey lan nga ñu présenté gis nañu fi benn maal bu mag a mag sa ginnaaw est-ce que mën nga ñuy wax maal bi fan la juddoo est-ce que yéen yéen ko juddu la wala ñu ko jënd. waaw maal bi ngeen di gis nii El Capo tudd. juddoowul si ñun nag dañ koo recruter woon doomu phénomène la maanaam surtout booy séeréer la phénomène doomu baaypal la baaypal doomu kaskas la kaskas mooy doomu booy séeréer côté yaayam dégeen moo ko jur dégeen doomu farba farba doomu algor lan mooy spécifisme maal bi c'est-à-dire que maal bi lan lañ gën a mën a jàpp si moom guddaay bi la wala rëyaay bi wala lan maanaam maal bi boo ko xoolee nga xam ne lépp ñëw na si moom bu dee gabari am na ko LCS am na ko hauteur am na ko poids bi am na ko wane na boppam daal boo ko xoolee yow mi sa jëm boo xoolee maal nga xam ne kii ñàkkul dara. mais instant bi ak ni mu ak ni mu diisee nii est-ce que mën na tëbu. waaw day tëbu mais ça dépend quoi poids bi mu yor nii mun na ko gaañ mais foire bi moo tax ñu def ko ni pour mu mel ni te boo xoolee sax des na lu bari buñ ko chargé woon normal day ëpp lii. Ah, xar bi kon mën na ëpp waaw mun na ëpp lii boo xoolee bu baax xar bi boo xoolee yaxu xar bi mën na ëpp lii des na lu bari mhm. tey jii nii est-ce que bergerie bi euh, ma yi fi nekk ak ak ak ak ak femelle kenn ku si nekk mën nga wax famille bi mu jugee wala am na yoo leen noonu rek te xamoo leen ban famille lañ jóg. waaw ndax ñun maal femelle bu ñu jël mun nañ la wax fu mu jóge ndax ñun dañu si bàyyi te bu ñu fi bàyyi ku ñu fi bàyyi tamit heure bu demee recruter bu ñëwee daf ñuy daf ñuy wax bii fii la sokkee ko kii mooy papam ndax loolu tam sang bi day day tax nga xam quoi ndax keneen bu ñëwee bu ñëwee maanaam pour visiter yooyu la lay laaj kii fu mu bàyyeekoo sang bi am na si importance. tey élevage Sénégal ñu bëre bëri léegi xam nañ ko ñu ngi siy dugg ko que laa doom tey euh, ñi nga xam ne bëgg nañ si dugg ba njëriñ moo si nekk boo xam ne tax war na tax nit bàyyi lu bëri bëri mën si dugg. élevage bi waaw ñu ñëpp gis nañ ni mu ngi jëm kanam te boo seetloo léegi maanaam ñu bëri ñu ngi siy daw élevage laadum ñu bëri borom xaay si bëri ñu ngi siy investir te tey jii nii maanaam ñun ñuy nekk jeune. ñu ñuy jël ñu nekk si bergerie yi di xont xar yi maanaam loolu rek ñun daf ñuy motiver daf ñuy maanaam may benn paak ci kanam quoi ñu xam fu ñuy teg suñu tànk ndax par exemple tey jii ñu bëri ci ñuy investir si élevage dañuy ñëw rek dugal si seen xaalis maanaam amuñu amuñu comme connaissance boobu quoi par rapport ak ñun ñun ñuy jël temps biñ siy def ñoom defuñu ko si. dañ ci si wala dañ ko jang wa mën nañ ne dañ see judd ndax dañ si dañu judd fekk suñuy wayjur di yar tamit tooguñu tamit benn place ñu ngi siy gëstu ñu ñu upp xam-xam tamit ñi ngi dem di len séti ñu ñu yokk xam-xam ndax tay ji bo sétlo bergerie bi suñuy ay papu ñoko yor buñu togué ak ñom da ngay xam ne ni ab xam-xam mi ngi si ñom bo togué ak ñom di nga am lu bari loy jang si si ci biir élevage. des fois nga dëgg euh, gars yi wax benn prix xar daan na ay ay ay cinq millions un million dix million trente million mais yooyu est ce que est ce yu yu yu raisonnable la c' est à que est ce que tey xar war na mën tax taxaw rek mu jat benn trente millions. waaw prix bu raisonnable la kay ndax ak gars yi amélioration bu ñu bëgg a def yaakaar naa buñ ci teguwul seen tànk dinañ dem ba dégg prix yu gën a yéeme yooyu. waaw. Uh-huh. seen alimentation naka la demee nan la nga leen di xonte. ah ni leen di xonte comme trois fois par jour bu ñu xëyee dañ leen di defaral mburu mburu bu tooy bi def si laalo bu ñu après bu ñu lekkee ba pare ñu sotti leen ngooñ bàyyi leen ndox ngoon bi ñu sotti leen seg bi ñu lekk ñu lekk après timis bi ñu xontu leen xont bu tooy Euh, bergerie bi mën nga ñu wax fan la nekk ak joxwaal sa contact pour xëy na koo xam ne soxla na ñëw pour am lu mu jokkoo ak yéen. waaw bergerie bi mi ngi nekkee Kër Massar croisement Théoane Peul cité Almadi 2 foofu la nekkee képp ku fa bëgg a ñëw rek suñu contact mu ngi nii moo nekk nii si kii bi boo jëlee table waaw 77 662 45 51 wala 77 527 79 wala 77 713 68 41. moo xam da ngeen di jaay da ngeen di da ngeen moo tax moo xam dañuy jaay wala dangay ñëw visiter waaw. waaw waaw boo wootee dinañ la dinañ la mais teg si code quoi. ñu lay jaajëfal bu ok maa leen di sant di leen gërëm yéen tamit. foire bi naka bu organisation bi baax na lan moom manqué wala. maanaam foire bi waaw nice quoi nice organisation bi normal na lépp impact na du ñàkk nag am na am ndox moom am nañ fi problème. am nañ problème ndox tamit waaw sécurité bi ça nax ndax des fois guddi bi da ngay gis kii homme de tenue ñu ngi jaabante fii di xool quoi waaw waaw ñu ngi leen jox seen wàccuwaay jaajëf